ci sëriñ bi ñuy wax monsieur Ndiaye ma nga nekkoon ca dëkk bu ñuy wax bokkal fa la alaaji amat sëy nii dëkk risalatu bnu abi zeyd al xayrawaani la jàng ci moom Cheikh Alxaaji Malik jàng na ci sëriñ bu ñuy wax kale sëy ma nga nekkoon dëkk bu ñuy wax kër tayba sëy téere bu ñuy wax milxatu li arab ak kitaabu tasrif nga xam ni boo ko jeexalee rek daal di mën a conjuguer moowu arab yépp moom la Cheikh Alxaaji Malik jàng ci moom jàng na ci moom muqaddimatul kokki qaala muhammadun kokki yu daari wal abu min durriyati almuxtaari jàng na ci sëriñ bu ñu naan ngañ ka ba tey tëjwit ak bind alquran jàng na ci sëriñ bu ñuy wax abdu bitey fiq la ci jàng jàng na ci sëriñ bu ñuy wax muhammad baccu fiq la ci jàng jàng na ci sëriñ bu ñuy wax moor seen kan ma nga nekkoon dëkk boo xam ne ca waalo la nekk ñu di ko wax ndomba alarba ma nga ci jàng aqidatu sanusi jàng na muallaqaatu saba waaw téere luxa boobule nga xam ni wàllu vocabulaire la jàng na ci bàyyi alxaaji ahmed njaay maabey jàng na ulumu tarbiya wa suufiya ci cheikh mohammed ali ay yaqubi al alawi bi mu amee trente ans teg na li ñuy jàng lépp moom cheikh alxaaji malik radiallahu anhu waaw waaw bi mu jàngee ba mën jàng moom Cheikh Al Hadj Malick nan la def dafa daal di dellu gaaya ca dëkk ba nga xam ni moo di masqatu rasihi fa la ganee àddina dal di commencé di bay ci tool bu ñuy wax ngambu cule lu mu fa mas a récolté dimbalee ko maam Fawad miy way juram su soxna si jëlee ba desal mu dal di saraxe la ca des moom Cheikh Alxaaji Malik radiallahu anhu gis nga foofu ca ngàmbu cule am na fa benn xeer boo xam ni maam Fawad da ca daan teg tànkam di jàpp bi maam Fawad génne àddina ñu suul ko ca gaaya xeer wa dafa diireeku ba yegg ca bàmmeel ba waaw foofa la déparé di direeku ba ca ga ba ca ba ca bàmmeel ba xanaa xamuloo ni tariqa tijaaniya dañu dul waxtaane kéemtaan duñu ko waxtaane mais liñ ci am kenn amu ci un un pour cent Cheikh Al Hadj Malick nii may waxtaane jëfante naa ku ñuy wax maam Abdul Karim Baaba li góor gi di ko wan ay kéemtaan mu ree ni ko demal ca marché ba jëndal ma dugub bi suuna góor gi jënd dugub bi suuna mu ne ko nañ dem sumbu jum ñu dem sumbu jum Cheikh Al Hadj Malick wàq ci mbeex mi mbeex suul ca suuna sa maasale ci saasi rek mu ne jëf bët génn jëfa fa fa fa màgg ci saasi palpal ñor mu ne ko Abdou Karim mën nga lii mu ni ko mënaguma ko mu ni ko tegal kéemtaani ci suuf te wéetal sa borom abdal karimi ida rumta alkaramata kun murdi lkarimi tanal ma chita min zafari inna alrida fi alrida ya abdu fastami an naba alwasiyati fi isgaai muddakiri waaw mu ni ko alxaaji abdul karim mu ne amu ne ko boo bëggee kontaan loo yàlla da ngay sax ci lu yàlla gërëm mais def kéemtaan ci wëliyu Cheikh Al Hadj Malick nee na mi ngi mel ne góor guy indisposé waaw inna al karamati xaydun li rijali fala tudif li nafsika inna al wasfa lillahi Cheikh Al Hadj Malick nee na kéemtaan ci nitu yàlla mi ngi mel ne góor guy gis póot noonu la ñàkk fayda ca péyu yàlla ba benn kéemtaan rek la nit yàlla yi soxla mooy jub te bañ a dëng jub te bañ a dëng daaw góor yëguloo ni géej ku ci dox ñu nawee la ko jën la ñu waroon jëkk a naw moom ci la am kër waaw géej ku ci dox ñu yéeme la ko jën lañu waroon jëkk a yéem moom ci la am kër mu jeex tàkk ah soxlawul jaww ji ku ci naaw ñu yéem la tubaab yi la ñu war a yéem ñoom ñi defar boyin mu naaw ak juróomi téeméeri nit ak seeni bagage jóge Amérique ni cëpp Sénégal te ka ko defar gëmul yàlla gëmul yonent bi ah gëmul yàlla gëmul yonent bi tour de monde ku ko mënoon ci bés ñu di la naw iblis la raw ndax seconde bu ne wër na àddina deux fois non seulement wër na àddina mais population yépp dugg na ci seen deret foo toog iblis a ngi ci sa biir deret di circulé ak yow inna cheytaane yajri ala al insani majriya dam yonent bi nee na cheytaane day jaxasoog dereti a doomu aadama di daw ci moom ànd ak deret ja jub te bañ a dëng mooy kéemtaan moo tax bokk na ci lu cheikh alxaaji malik bind ci taalifam yi nee na fi kulli yawmin tatlubu alkarama alam yakun min qabliha istiqaama nee na bis bu ne yaa ngi wut loo naka nit ñi lu ñu la yéeme mu ni teewoon nga jéem a jubbanti ko ba pare ah cheikh alxaaji malik radiallahu anhu di liggéey ndax liggéey ku ko deful doo tedd wala la ngay dunde du lew moo tax mu doon bay ne ñépp moo tax réew ku ca poñe ñett yaa daaneel réew ma réew ku poñe xam-xam poñe liggéey poñe maandute tukkal nga àddinam réew ma moo tax ñett yooyu Cheikh Al Hadj Malick raw ci ñépp commerce na na ñépp bay na na ñépp jagsaaw préw la ci kel tool yam fa amoon préw la ci ngàmbu cule préw la ci dëkk bële sëriñ bi di ma yóbbu may gàmmu ji gosaas préw la ci jàmm gën préw la ci fu ne toj na àll ba bay ca moom Cheikh Alxaaji Maalik tuur ñaqam dunde luñ ko mas a jox mu jàllale ko miskin yàlla yi te daañ ko dégg ca kanam maandu te bi ma tudd Cheikh Al Hadj Malick ko gën a def ñëpp jóge na dëkk bu ñuy wax meññale ca Jolof fekk mu seeti woon Alburi buur ba Jolof war benn gëléem ñii ni fas la mi ngi ànd ak sa papa yow daaw góor góor gi musaale mbaay gëléem nga yóotu ngooñu gerte ma daal di ko lekk Cheikh Al Hadj Malick yë- yësal gëléem nga wàcc ni man kat daaba ji ma war ngooñu gerte jaambur gii mu lekk duma ko yóbbaale ci bàmmeel yowmal qiyaamati toog di xaar borom tool ba borom tool ba ñëw mu ni ko man kat damaa tënku mënuma fee jóge mu ni ko lu la tënk mu ni ko gëléem gii ma war nosam bi daf maa rëcc lekk sa ngooñu gerte gii te yàlla daf ma koy topp yowmal qiyaama góor ga ni ko baal naa la ko waaye koo fi bàyyi mooy ñàkk fulla sëriñ laa doon wut yow mii topp ca waaw kuñ ko tëkkalee rek nax nañu la waaw Cheikh Al Hadj Malick daan na bay ci dëkk bu ñuy wax Kër Baara Sall di liggéey na ñëpp parce que nee na nit ku am xel ñaari ñaari soxla rek lay am Cheikh Al Hadj Malick nee na nit ku am xel. ñaari soxla lay am du ñett dërëm bu mu yóbbu këram ak yiw bu mu fekk ci bàmmeele nee na boo amee ñetti soxla rek amuloo xel fa aqilun yaamalu fi cheyayn la thalitha laha biduni mayn xasanatun takunu fi lmaadi wa dirhamu lmaashi minhu baadi Cheikh Alxaaji ma nit ku am xel dépense rek lay sonne ak lu mu terale boppam ak i bokkam wala boog yiw wu mu fekk ci bàmmeelam gannaaw gi mu ne dañ koo def kat ñaar waaye benn la wuti dépense yonent bi nee na am na ci bakkaar yi bakkaar boo xam ne boo ko xasee ba def boo jullee sax du far boo wooree du far boo azaka du far boo ajee makka du far boo jihaatee mu far walakin yukaffiruha talabul maisha nee na ñàq dunde rek a koy far moo tax jàng diine rek tax nga banki loxo ni yàcc teguwul fenn teguwul fenn yonent bi ngay roy fekk na ko yeew ay gàttam mu ni ko maratal la ko nga fay ma fekk na koy tabax mu ni ko ma servi la nga fay ma ñaw na moom yonent bi toog na it nit coobare wu jox ko addiye mu ni ëskay kon liggéeyal liggéeyal ba ñu dab la jox la mu door a lew cheikh alxaaji malik nee na wala tutalibhum min alqalili wala min alkathiri ya xalilu ila alladi samahat nufuusu bi baglihi fa dalika nafisu cheikh alxaaji malik nee na alali taalibi yoonu sëriñ nekku ca du lu bare du lu néew nee na bu ñu coobare woo nag laaj la laajuloo ñu jox la nee na lekk lew na moo tax Serigne Babacar si bii toog dégg naa ci moom mu ne bàyyam bu tedd ba Cheikh Alhaaji Mansour nee na daf ko nuyu papa ma ngi toog ni ko Serigne gis nga kër gi de mu ne waaw mu ne ko ah sa moroom yi de seen bàyyi rek a ma ko fi defal nee na mu ne ko waaw mu ne ko doom koo xam ne loo dunde ñàkku ñépp a nga ca sëgg rek a la waaw bay Cheikh Hadji Mansour ma ko wax koo xam ne loo dunde ñàkku ñépp nga ca sëgg rek la war xam nga kooku mooy jàngale yàlla kooku mooy jàngale yàlla mais sëriñ dafa am ak sëriñ sëriñ dafa am ak sëriñ waaw jamono bi nag neexul waxee soo waxee rek ñu ne ñoom diwalee tax a wax waaye wallahi kenn taxu may wax kenn taxu may wax waaye nag leeral dafa jot xaalis ak xandeer du benn tojitu ndaa yemul ak xaalisu gal alfiddatu walxaddatu baynahuma alfarq waaw fiddatu mooy xaalis xaddatu mooy xandeer tojitu ndaa yemul ak xaalisu gal leeral jot na waaw leeral jot na waaw waaw cheikh alxaaji malik ja bay na ci dëkk bu ñuy wax mengeñ booy waaw bay na fa waaw sëñ Babacar ne mengeñ du waalo de bokk ca xamoo ci dara dem nañ jàll xaar ba mu jógee mengeñ googu di fa sonn di fa sonn di fa sonn ba Cheikh Al Hadj Mari nee na jànkonte naa fa guddi goo xam ne gi tuuti ma jëlu mooy yaatuula layliya fiiha bittu njalla xaaraa ukaabidul kadda xataa kittu misxaaraa nañ julli ji te ñëw tàmbali waaw loolu amu fe de Cheikh Al Hadj Malik dégg nañu lim jàng lépp waaye ndeke lim xam lépp jëlewu ko ci lim jàng maam alxaaji Saydu Nuuru Taal nettali na nee na mi ngi dégg ci Ceerno Maxtaar Saaxo ca bogge mu ni ko acheikh alxaaji Malik allahu tawalla taalimahu mu ne cheikh alxaaji Malik yàlla ko jàngalal boppam nee na bi ko Ceerno Maxtaar Saaxo waxee ba noppi daf caa teg ne wattaqullaha wa yaalimukum allah yàlla nee na ragal leen ma ma jàngal leen te Cheikh Al Hadj Malick dafa ragal yàlla wax jooju ku ko bëgg a seet mën nga ko seet ci awdaxul masalik fi manaqibin wa xayaati Cheikh Al Hadj Malick Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh a ko bind téere la awdaxul masalik fi xayaatin wa manaqibi Cheikh Al Hadj Malick Cheikh Hadj Abdoul Aziz moo ko bind leneen li ci des ci waxtaan wi ku ko bëgg a gis man nga ko seet ci li ma xool rek waaw waaw kay waaw kay ixwaan Serigne Birahim Diop moo ko bind bu ndar ci dundu Cheikh Al Hadj Malick leneen li ci des ku ko bëgg a seet mën nga ko seet ci taariful wahabi al malik fi manaqibi cheikh alxaaj malik ahmed taban al alawi moo ko bind ci dundu cheikh alxaaj malik man kat samay référence foofu la jógee leneen li ci des dama dégg ko def naa vérification ci lum bind moom Maodo ba xam la ca nekk ak lañ ca yokk te bokku ci léegi Cheikh Al Hadj Malick waalo la nekk ñu tudde ko njoolum fuute bi yàlla daf ko mayoon jëmm jataaru moom Cheikh Al Hadj Malick waaye dafa sewoon ruuj nag loolu maa ngi ko xamee ci bindu Pape Al Hadj Mansour nee na baayam naxilu jismin yaram wa dafa sewoon ruuj tawilul baayi nee na xasabu Cheikh Al Hadj Malick dafa guddoon muatadilun nee na Maodo ku yem la guddul ba séttax gàttul ba ni ndukkuj wa jahwarun sawtuhu nee na baat ba dafa xumboon fi tuuli udnaahu nee na Cheikh Al Hadj Malick ku amoon ay nopp la qalilu nawmin waaye ku néewoon nelaw la wa aklin ku néewoon lu muy lekk la qalla minhu sharaabul maa'i néewoon na lu muy naan wal jismu li taa'ati aadaahu foo ko mas a fekk mi ngi jaamu boromam moom Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu waaw noonu la meloon Cheikh Al Hadj Malick commencé na di ñëw Kajoor waaye jaaragul nag ci waawan ku bare woon tànk tëngéej la lam fa daan wut dafa daan dënd téere Rufisque capital la bu bare woon téere ci jamono yooyu Cheikh Al Hadj Malick daan fa jënd téere ci biir njëndum téere moomu la sarxalu ba miin waa Cap-Vert waa Cap-Vert miin ko daal di ko bëgg sopp ko xëcc ko ci seen bopp def ko seen kilifa wóolu ko wóolu jikkoom topp ci gannaawam te duñ ko fakkatal def na fi lu bare lu rëy luñ mën a wax moom Cheikh Al Hadj Malick Médine gii ci ndakaaru Médine gii ci ndakaaru tilleen lañ ci xamoon moo ko tuddee madinatul munawwara waaw ba tey ñu naan Médine Cheikh Al Hadj Malick moo ko tuddee madinatul munawwara waaw kenn du moom jaxasoog ñépp nag waaye jaxasoo gi nag kenn du ci yóbbaale ngorom kenn du soppi diineem kenn mënu koo cuub ku ñëw ci moom daal moo lay suub nga niru ko wala nga takkaat say bagage dellu fa nga dellu woon waaye kenn mun koo soppi moom Cheikh Al Hadj Malick wax nañ ne nee na ñaar laa gën a bañ baatu jigéen baatu góor ca néegu jigéen ña ak ko toll ne ñépp dikk ci sama kër gi te nanguwul jàng nee na ñooñu ñibbi rek parce que xam na ni ku jàngul réer te ku réer foo nekk yàq ko moo tax Seydi El Hadji Mansour nee na bàyyam mas na ko woo ni ko Mansour mu ni ko labbayka mu ni ko man yàlla nattu na ma ku ma jur daañu la topp te nit ñi ku ñu topp laaj la te ku ñu laaj te xamuloo nga wax da nga fen te ku fen ba dee dem safar waaw moo tax Cheikh Al Hadj Malick këram daf ko sampe xam-xam sampe ko sharia ak sunna moo tax ku fa bëgg a dugal lu dul xam-xam da nga ko génnee ci biti xam-xam lañu am ñoom moom it lañ xam moo tax mas naay wax ne bu la sa àll wa jayee ba jay la da nga naan waati waawan rawuñu ma waaye kenn ñemewul wax ni maa raw waati waawan waaw loolu kenn ñemeegu ko wax waaw bu la sa àll wa jayee ba jay la da nga naan man de waati waawan rawuñu ma te sax du nekk dëgg waaye nag maa raw waati waawan kenn ñemeegu ko wax waaw ma nee su ko wax waaw cëram la Cheikh Al Hadj Malick bi mu amee xam-xam dab na ci xam-xam bi xadis buy wax ne buniyal islaamu ala xamsin shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaa wa itaai zaka wa sawmi ramadan wa xajjil bayt jàng na yonent bi ne lislaam dañ koo fondement ci juróomi yëf bu jëkk bi mooy nga seede ni yàlla rek mooy yàlla mooy yónni yonent bi taxawal julli joxe azaka woor weeru koor aj makka baatu aj makka bi ko sunna tuddee alquran tudd ko moo tax mille huit cent quatre-vingt-neuf Cheikh Al Hadj Malick jóge fi dem makka siiw na nag ñu naan dafa dox waaye loolu wérul bato la dugg waaw siiw na nag ñu naan dafa dox waaye loolu wérul bato la dugg Cheikh El Hadj Malick bi mu jógee Dakar Marseille la taxaw ba mu jógee Marseille Alexandrie la taxaw Suez la ca teg yegg Jidda aj aj bu fés jooxe aj ga na ko saa borom tabaraka wa taala bëggee ziyaara yont yàlla muhammad ziyaara bu wér wàññeeku tàggu kaaba ga ci xasida bu rëy astawdiau llah rabbi kaabata allahi wa kullama xawlaha ya kaabata allahi da ngeen ko dégg ci bu may lim len nat ci taalifa bi ci biir tam bi len nat ah ci taalifa bi lim taalif lépp buñ ko doon lim ci bëccëg bi du mat waaye ñim jàngal sax liñ taalif buñ ko doon lim du mat ñooñu sax ñeñ jàngal ñeñ jàngal kenn xamul nu mu toll macha allah li lay wan ni Cheikh Al Hadj Malick kenn du moom bi mu demee ci kaaba gi ñëpp di ñaan dafa ni yàlla loo ma nangul ci samay jëf maa ngi lay ñaan nga dencal ma ko ba yowmal qiyaamati bu ma ci jox dara ci àddina ndax mën nga maa nattu ma gis ca sama bopp ba yàqule te loolu bari na kum dal nag benn bokk na ci lu mu ñaan ca ajam ga moom Cheikh Al Hadj Malick nee na ko fa ñuy taxawale sa jàkka yee ca Sénégal yow yàlla di ca màggal sa tur wi di ci yëkkati sa tur wi maa ngi lay ñaan nga boole ma ca man Cheikh Al Hadj Malick muy jóg ci sama tur waaleykum salaam wa rahmatulah ca ajam gu barkeel ga nee na yow sunu borom maa ngi lay ñaan sama doom ak sama taalibe yàlla bu ñu leen xàmmee ci xam yàlla ak sell ak sellal defe naa loolu nangu na de bokk na ca lu mu ñaanoon ca ajam gu barkeel ga moom Cheikh Al Hadj Malick radiallahu anhu nee na yàlla maa ngi lay ñaan place boo xam ne bii danaa fa tuur sama ñaq di fa jaamu yàlla di fa jàngale diine di fa dimbali ñu sonn di fa xamal ñu réer yàlla nangul na ko ko ci jagsaaw mu gor ko 1904 waaw muy dadde nisaasu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh bokk na ca lu mu ñaanoon ca ajam gu barkeel ga nee na yàlla Sénégal day réewum nit ñu ñuul lañu te nit ñu ñuul dañoo baax a baax a baax ba buñ gisee ku xam diine danañu ko toñ toñal ba di ko bëgg a def yàlla yàlla nga aar sama ñoñ yàlla buñ ma jiñ yàlla mukk defe naa ñaanam googa nangoo ci na bi mu wàññi ko ci ajam gi moom Cheikh Al Hadj Malick wàcc na Qahira nekk ci dëkk bu ñuy wax Samarqand dugal na fa ñu bari ca tariqa bi bind na fa ay lijaasa ab muqaddama ma nga foofa moom Cheikh Al Hadj Malick ca Kaar Serigne Hadi Touré nettali na nee na dégg na ci gémmiñu Cheikh Al Hadj Malick mu ne ci marché Kaar Cheikh Al Hadj Malick daf faa jënd tuuti fustuq waaw gerte gu ñuul nee na dem ci jaamiatul Azhar laaj ulamaaw ya fa nekk ni leen waaw lii ndax yéen gis ngeen ne war nañ ko génne azaka ñu ne ko ay ci ñu discuter ci ñu discuter ci ak moom Cheikh Al Hadj Malick ñëw taalif téere bu ñuy tuddee waajibu zakatil fustuq azakay gerte génnee ko lu war la te fekk na am na ñu bari daaw ñu ko génnee déjà da ngay gis ne nitu yàlla la mais intellectuel la en même temps moom Cheikh Al Hadj Malick radiallahu anhu waaw Cheikh Al Hadj Malick radiallahu anhu bi mu ñibbisee ci ajam gu barkeel googu dafa commencé di jaabante ndar waalo jolof kajoor te loolu mi ngi am 1999 Cheikh Al Hadj Malick jekki-jekki dem jolof seeti buur ba jolof Alburi Njaay alburi boobu sax am na benn soxna bu mu yoroon kuñ doon wax lingéer magandoo yi waaw bi mu génnee àddina bëggoon nañ ko jox Cheikh Al Hadj Malick waaye Cheikh Al Hadj Malick ne sama kër gi daal bu ñu jëlee caddo dugal ko ci damay bañ mu suub leen ñuy caddo dama bëgg lépp di yàlla waaw góor googu kenn du moom waaw شيخ تقي لا يزن بريبة على استقامة بالإله معاني يوم الضحال أبصاريا على الهدى يا ترجمان العلم والقرآن من ذكر شيخ عالم متورع قال بأنامي للهدى بحناني allahu akbar الحاج منصور سمال الله عنه.
سير الحاج مالك موي شيخ تقي لا يزن بريبة على استقامة بالإله معاني الله تمام موي عين الشريعة الله والحقيقة إنه يهدي المريد لخالص الأديان aynu shariati aynu shariati عين الشريعة
taxawal tuuti summa jaalnaaka ala shariatin sunu borom nee na yonent yàlla muhammad maa rëdd liñ ko nit bi nga xam ne ci ngay jaar Cheikh Alxaaji Malik di ko appliqué dem ba nekk jëmmi sharia moom la bàyyi Alxaaji Mansour wax
تعني لن يبدفنين ومجلس يخطي الحاج مالك شيخ الحاج محمود المنصور نين أكو مال عين شريعتي nee na Cheikh Alxaaji Malik radiallahu anhu dafa appliqué sharia dem ba doon jëmmi sharia mënatul génn ci sharia sharia mënatul génn ci Maodo
والحقيقة
nee na kat du sharia kese xaqiqa bi sëriñ si di damoo ba léeg-léeg nga gis ko naan sama sama taalibe dinaa ko xuusale fii ci xaqiqa Cheikh Al Hadj Malick dem na ba naan xaqiqa dëggu-dëgg Maodo ko dund إنه يهدي المريد لخالص الأديان ab Al Hadj Mansour nee na innahu moom Cheikh Al Hadj Malick yahdi al murida day jubbanti taalibe li xaalisil addiyaani jëme ko ci diine ji gën a sàll قالوا لن يبدفنين ومجلس الحاج مالك شرحاج محمد منصور نين أكو مال بعيني معسام المقام waxmu al maridi wa huwa saadu muridihi وهم المريد وهو سعد مريده موضه gis nga langue arabe lu doy waar la boo ne murit mooy taalibe bi bëgg yàlla di wut yàlla soo ne muraat mooy ki yàlla bëgg di ko wut soo ne marit mooy ki bëggul yàlla yàlla bëgg ko lu doy waar la langue وهو arabe مريدي وهو سعد مريده سيد الحاج مالك langue arabe lu doy waar la boo ne murit mooy ku bëgg yàlla di wut yàlla di ca sonn guddeeg bëccëg soo ne muraat mooy ki yàlla bëgg di ko xëcc te yàlla kum xëcc nga yegg marit mooy ki bëggul yàlla yàlla bëggu ko teg ci Papa Alxaaji Mansour ne Cheikh Alxaaji Malik wax mul maridi poson la ci ku fetteerlu ku bëggul yàlla yàlla bëggu la Alxaaji Malik poson la pour yow كما الإله يدا من الأبدان waaye bi mu nekkee posen ci ku bëggul yàlla wa huwa saadu muridihi texe ku bëgg yàlla la di ko jaare ci moom pour am yàlla kam ñaata hada la jubbanti moom Cheikh Alhaaj Malik lil abdaani ci ay jaam lil ilaahi ba ñu yegg ca yàlla قالوا لن يكون اسمي موضع وإسلام المقام وعمدة العلماء بل nee na Cheikh Alhaaj Malik saamil maqaami mooy ku yëkkati ku ko daraja wa umdatil ulamaa te mooy ki borom xam-xam yi teg seen bët ci moom fas yéene ko roy bal li fi nekk sax taajul awla fa kawe yam fa la alaaji malik départ pour jëm kaw wa kama attel al qamaraani comme ni jant beeg weer yi tiime ñëpp noonu la cheikh alhaaji malik tiime ñëpp Cheikh Seydi Hadji Mansour nee na Maodo huwa min fadli
nee na boo bëggee xam kan mooy seyd alhaaji malik huwa moom willu fadlin mooy keppaaru ngëneel waaritin wa tariquhu Maodo nee na garabu cheikh alhaaji malik xob ya du ruus mukk te xob ya kat leer lay ruus bu demee bay ruus wa tariquhu abdou taylil tuuti lii kat du ma ko gaaw toode
doyewu ko dara Adja bi Diagne nee na ñeenti junne yi naa ko def sama poos mën na ndogu ok nañ gëmm boog ma denc ko
واخبى المريق مريدي وهو صالد مريده كم إلهي على من waaw العدى fu ma yemoon ci sax xamatuma ko kat xaalis baaxul waa kay ummu jaww teg na ci ñaar am na beneen bu jógee ne la de bu leen kenn toppandoona
أي بل تاج الولاء وكم اعتلى القمر gis nga waaw toogal ak moom tuuti rek jarul sori nag waaye toogal ak moom tuuti gis nga Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu benn nit rek la ah benn nit rek la xam nga lu tax sëñ mbay ni ko toogal li ñuy wax mu ëpp xaalis bi moom mi ku may yéene xaalis moo ma moo ma moo la gën a yéene xaalis mais dafa xam ne valeur bi may bi may wax nii waxuma ko